man li ma fi wax yëpp lu ma gëm la fi nga daane de foofu laay yëkkatee ndax te mbaraan dafa baaxul ci dara lépp loo gis si àddina rek euh, gëm-gëm la ñun dañ ko war a gëm gëm ko muy suñu réalité Sénégal ah jigéen yooyu ngeen di wër pour génn ñoom léegi waltu leen jigéen buy liggéey ci kër gi de waaw man nag li may conseillé mooy jigéen ñi nañ rëy bët dékkal ma kon caméra mu daal naan dina soxal mbokk internet Sénégal TV gi ñu seetaan. ñëwal fii dañ doon faral di wax jigéen. booy wut jëkkër bul taamu milliardaire wala ko am alal da ngay dem taamu ki nga ne mën na la yor bëgg na la na la suturaal. pour boo ci duggee ëllëg leneen lu nga ne ko ah vraiment ba may ñëw. tuuti am maa fi toog muñ fi ba li fekk su choisir ku am ay milliards ak ay di nga fa dugg ci milliards ak oto yi te du a jëndal sa yaay loolu am oto bu rafet sëyul kër sëyul na nga ko bëgg mu bëgg la mën na mu ñëw surtout laa la nit yor ay milliards du la ko yéene takk la dugal la këram mënoon la jëndal mm. bu yoree day bari titre day bari day bari caprice day bari service parce que danaan sama alal laa mm-hmm. su ma defee ma neex sax du tax mu dem parce que alal la bëgg. tax ma bëgg góor bu bëri titre mm-hmm. góor bu bëri titre gis nga bu la takkee da yor. Siteu man maa ko bëgg parce xam nga lan moo tax. day bëgg ku loolu gis nga nit comme li nga ko waxee sànq. nit mën na yor ay milliards. Mm-hmm. te du la ko yéene. Mm-hmm. mais nit mën na bañ am sax lu sukkar kafe. Mm-hmm. mais saa su nekk. mi ngi am mbébét. di am yéene. kii kat si bés nan laay def ba am ba teral ko. est-ce que comprendre nga. kon donc tey fierté lay nekk de yow nga génn koo xamante ni nga dugg ci koo xam nga dugg ci koo xam ne yorul dara eh, toog fii am na ñoo xamante gis nga bu ñuy war ànd bu ñu àndee rek Sénégal jëm kanam. tiita man sama maam daan ma wax naan boo bëggee góor xoolal góor gi nga xamante ne dafa bëgg lekk. te muy lekk Mariam. day nangoo joxe dépense man damaa bëgg góor gu dañuy ànd ak jigéen si góor ba mu ba dara dul dara. Mm-hmm. bu ko defee bu dara di dara ñu xam la ku nekk ku wéet xam sa baay. Mm-hmm. yaa ngi du ma ne loolu moo fi waaye comme ni ma la doon wax sànq ku nekk ak sa wërsëg ñii dañoo xamante ne nii dañuy xoslu ba keraa ñuy baraja dee seen wërsëg bi doog a jëm. Mm-hmm. ñii am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek ah yàlla indil leen wërsëg loolu wërsëg yamul. mais comme kii kii wax sànq bëggeel gi rek moo am solo. te li ma wax léegi gis nga jigéen du bëgg day miin. jigéen du gis nga góor gi ngay tasee si mbedd mi mu ne la jox ma xam nga si mbedd mi la nit ñi bëggante nañ waxante dëgg mu ne la jox ma sa numéro nga jox ko sa numéro ñeen commencé di dawal commencé déggante beeg yooyu kooku xam nga dèjà na woo moom moo la gis bëgg la. boobu sa mbëggeel amagu fa. mbëggeel amagu fa gis soppalu la quoi. waaw da nga ko neex quoi. au fil du temps ngeen di waxtaan yi di di ñëw ba mbëggeel nekk fa. Mhm. kon nag bul ne jigéen da nekk ak ko nga xamante ne ni amul dara. man du ma nekk góor gu ñàkk a jom. ñun dañ ko war a gëm gëm ko muy suñu réalité Sénégal moom fi lañ dëkk ay sénégalais ay africain lañ ñaari dëgg ah. dañu am ay réalité am loo xam ne ñun moom la moom gel yi lañu bàyyi laaj bu ñuy dund bu ñu fekk góor gu pare ñu bëgg a dem dugg ci moom. waaw gel bi nga xamante ne nii faram mu ngi ca kaw. yor lul jeex te du ko yor nit ci milliardaire la mosu ko may cent franc te xale bu jigéen ba ñaanu ko topp ko ci sonal ko parce que gisul la mu am daa gëm def nii famille xale bu jigéen rek dañuy taxaw naan ko kii no man no man no man no man alors que xale góor bi daf ko doon seet non li nga wax li nga wax naa li mu wax yóbbu ko états-unis di xool ba xam toppatoo wala dara. yow li nga wax bu quatre ans may ko changement. a ànd taamu naa ci bëggeen. man taamu naa ci bëggante bëggante ba mu neex. man taamu naa ku nekk di wax li nekk ci yow. ñu dem dem dem a dem fee. ah de a dem a dem bu bëggeel fee. man man d'accord ba ay gis nit rek bëgg ko xam nga lan mooy bëgg xale jigéen lan la ñuy bëggee ku yor sa sutura

ëllëg yaa sama sama àdduna ah jëluma sama dara wékk ko ci góor waaye ka may dama koy seet bu baax. Mm-hmm. xam nga lan moo tax man du dañ maa yaree am jom ak outil loo am. Mm-hmm. nii nag comme man bëgg outil lu ma am yow suma bopp. Mm-hmm. su may ànd ak góor damay ànd ak góor gu am jom. bu am jom waaw te góor gu am jom nag bokk na ci góor guy xëy di wàcc te doo xëy di wàcc te doo wàccaale dara. Ah, dara te yaa. waaw dara te yaa. kii kii mën naa mën naa ànd ak moom. bu la neexee. ki mën naa ko dégg parce que mën naa ko protéger ci benn côté parce que moom protéger na boppam ba pare moom nee na góor da nga war a ak moom try ak moom jóg ak down up and down mooy am mooy am mën ko defal at naa ci biram mais boo jógee pour ñëw di ma ñaan fan yi passé laa fi doxaan benn ngeen même pas un mois xam nga lu mu def dama am xew exemple exemple bàyyi ma wax wala buy ma même pas un mois rek ngeen bi dama xoolal dañoo am xew sama kii nii nii dama war a jënd euh, lu ma ñaw sama tëye bi tamit nii mën a ko ñaata la testé ko quoi pour xool rek détail bi li may laaj yëpp ñaata la quoi mu ne ma non tëye bi vingt mille laa ko war a jox quoi mu ne ko lu mbaag bi mu ma non sax ma waroon sax avance naa gars bi quinze mille xaw ma des na tamit quinze mille quoi ma ne ko loolu boo ko boolee mu yaar mu a ma trente cinq mille ma ne ko ok dafa pare rek wala dafa pare <laughs> <laughs> parce que man ma fi wax yépp lu ma la que jigéen baax yow li fi wax loolu ngay baax na nit ni nga mel rek ni nga waxee rek noonu nga mel sa de base ak nit la yare rek rek nga am ya, ya. sama yaay du dóor waar sama papa sama sëriñ dóor waar ñaan la am na ñi nga duñ la na ñi nga xamante ne dinañ la ñaan dinañ la chantage ba tax na nag mbaraan tamit ça prend du temps comme ni ma koy waxee ci war a seet ki la war a seet ak chaque jour fa nga war a jëm fit na rek ci ngay dee. man li ma xalaat jigéen day rëy bëri comme ni mu day rëy ah, ah man de man loolu laay ko jigéen bu xeesee bu rafet jigéen tamit bu am lay ut góor bu am benn wuti benn benn yaafus. am na ci demee si kaw ba si suuf eh. ba doog a wax ak yéen. waaw jëlee waaw jëlee ko si kaw ba si suuf. xam nga ne ni nga soog dara yomb ci. dégg nga ma ne jëlee ko samay daal Aïcha samay daal samay naaj lu koy fay. jëlal ma jëlal ma fay. samay naaj faa bi 3000 francs. maa ko def nii nag. Aïcha Aïcha Aïcha Aïcha Aïcha Aïcha teral suturaal ken waxu ne da ngay ànd ak nit na xalal ken waxu ne da ngay ànd ak nit ndax xaalis mbëggeel ca la waaye boy ànd ak nit tam da lay mën man ke waaye nak man duma ànd ak goor bo góor yeesal lu yàccul mënul bësul wàccul daanu bësul ci daan ya ngi dégg ak goor da ngay am jom ndax jigéen ni sax ñu ngi xey di takk seen i liggéey kii nag moom borom tiset borom la lakas bu rouge bi yaa ngi ko dee ko gis ak yi xam waxu ko problème mooy man dama koy tontu ñoom ñaar laay tontu quoi parce que kii bu bàgg laay wax léegi ah, ma paree ma jox leen ngeen wax waxu bu bàgg nu muy mel mooy parce que maa ngi wax loo xam ne arrangé wu leen yéen lépp arrangé mooy non dégg ma li leen arrangé man waxuma pour man sama bopp généralement laay waxee quoi comme par exemple gel yëpp ñu war a laay fekk ñu war comme li kii dañu war a wax ne jigéen da nga war a fekk góor boo xamante ni nii même bu amee sax ah, nga compréhension ak moom di ànd ak moom pas intérêt. mais góor ñi léegi dafa ndànk dama am xaaju mais ak i góoram ak i am na ñu mel noonu ay xaaju maam la ak i góoram ak i góoram. dama ne góor biy dugg si jigéen intérêt tax nga dugg si moom. Aïcha Aïcha góor biy dugg si jigéen intérêt tax man man si laay xoolal li laa gëm sama bëgg. te yokk leen maanaam loolu la mais juste que fii ku fi wax tey da wax. day fay nekk jëlee sa jël. Aïcha Aïcha Aïcha jël yi fii fañ sama saag yëpp dañoo lamb ñoom borom oto yi la ñuy wër. wala peut borom oto yi borom oto euh, ko daal faru jaay ko dégg nga da doon n'est-ce pas dañ dañ n'est-ce pas dañ ne ku la bëgg da lay yërëm léegi nag dañ dañ ne mun ngeen imaginer nit bëgg la ba pare te du loo defal dara loolu mun nga nekk nit bëgg ci la bokk ki la bëgg yërëm na la day jëf yërmaane bu day ànd ak ay jëf di la defal mu ne boo amee problème mu dagg ci ba mu jeex noonu la. problème bi du loolu. nit ki kay soo amee. kii sa partenaire amul. mais jàpp nañu leen loolu mooy ay char ay char xar sax ko yor xar sax ko yor di nga jënd rek baax jox ko ngooñ. ñu ah su fekkee jox ko mu naan waxatuma laa ah. mais mais waroo jël sa vie yëpp nga wékk ko ci góor xam nga loolu baaxul jigéen ñi dañu ko facilité. kii kii mën na dem bu nekk. kii góor bu am ay char noo ko xamee noo ko xamee. parce que kii mën na mën na dem ak góor bu nekk kii góor bu am bu ñëwee dina mën a dem ak moom góor bu ñàkk bu ñëwee dina mën a dem ak moom parce que bi nga yor saako dafa koy cité xalam dafa koy cité mais dafa am ay parfum dafa koy cité mais dafa jël ay parfum ñëw di jaay kon sax même buy maraat sax même bu fekkee même bu fekkee day maraat moom mën na preuve nii moom mi ngi mi ngi bañ mi ngi wut mais wute nag nga xam ne dañuy maraat xeesal boo weex tànn ay téye boo teg seen cëba nag rek défendre ko maraani ñu ne waxuñu ne dañoo maraat ndax moom xamul ba tey lan mooy maraat. dégg yow moom da ngay maraat da ngay door maatoo wuy ma loolu xam nga problème bi lan la. kenn waxul fi ne maraat yow xam nga sax luy maraat maraat mooy nga am ñu partenaire bu bëri moom déglu ma may ma may leen ma may si dama ne. ñoom ñii ñëpp dañuy maraat. moom sax ba tey dafa nangu sama wax moom moom laa bëgg nga bàyyi ko waxal moom parce que moom li mu jàppee live ak li mu jàppee am far avant muy muy doon sa jëkkër moom ni ko jàppee ak ni mu amee ni mu waree am du noonu gis nga góor da nga koy fekk sax jigéen gis naa sama benn copain xam nga lu liggéey sama copain mu liggéey ci tataay la nekk xale boobu ma daan man ba tey ba tey may ma man bi ma dalee wax ba tey néew ma ne mbaraan dafa baax ba tey ah encouragé wu ma mbaraan mais dama nga am ku si nekk xaalis ngay seetlu si moom mais xale bu jigéen bu ah, jigéen la fu baax nga teral say waa bi waaye dara yor ko ni si faay ci sa bopp ci nekk fekk mais man sañ naa wax ne bu ko bëggoon a jëlee man def naa loolu nekk. sax maanaam genre yi ñu woon xam nga la ñu woon jigéen ñu pare genre yi. buñ lay defar xam nga loolu lay wax jëfee dama la am. pare maanaam jigéen ju am xaalis. am dafa am këram. moom lay woon mu lay woo di la invité naan kaa ñu reer tête à tête genre jigéen yooyu ngeen di wër pour génn ñoom léegi. pour la wala tu leen jigéen buy liggéey ci kër gi de.